Bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué 126 du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a reçu ce dimanche 5 juillet 2020 les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 756 tests réalisés, 128 sont revenus positif, soit un taux de positivité de 16,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne, 34 cas issus de la transmission communautaire est répartie comme suit. Guédiawaï Ana 3, Mbao 3, Pikine 3, Mamel 2, Mariste 2, Dieuppeul 1, Rufisque Almadi 1, Cité Comico Cité Keur Gorgui 1 Fatick 1 Guinguinéo 1 Kaffrine 1 Khombol 1 Liberté 2 Liberté 6 Médina 1 Mékhé 1 Mermoz Plateau 1 Thiès SCAT Urbam 1 et Touba 1. 157 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès à la COVID-19 ont été dans nos structures ce 4 juillet 2020. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 7400 cas ont été déclarés positifs, dont 4870 guéris, 133 décédés et donc 2396 sous-traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective qui impliquent le respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique d'au moins un mètre dans les lieux publics, recommande également la continuité des soins et rendez-vous pour les porteurs de maladies chroniques. Notamment, les malades doivent observer et respecter le rendez-vous s'ils sont suivis dans nos services pour une maladie quelconque. Mais également, les femmes également qui doivent faire leur consultation doivent le faire s'il s'agit de consultations, qu'elles soient pré ou postnatales. La vaccination des enfants doit être poursuivie dans le cadre du calendrier vaccinal. pour le respect des mesures barrières, disais-je, il y a la distanciation physique à respecter, distance d'au moins 1 mètre quand on est dans les lieux publics, il y a le port obligatoire de masque, il y a également le lavage des mains. Je vous remercie. ma jottali leen communiqué euh, numéro 126 bu ministère de la santé et de l'action sociale bi nga xam ne jot nañ ko dimanche bi juróomi fan ci weeru juillet bi ñu nekk résultat yi bàyyee ko ci libe ci laboratoire yi nii lañ tëddee ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci cas contact am nañ ci ñaari kaa importé ci aéroport Blaise Diagne am nañ ci fanweer ak ñeent kaa yi nga xam ne mooy transmission communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul fan lañ ko jëlee ci ñooñu nag géejawaay am na ci ñett mbaaw am na ci ñett pikin am na ci ñett mamel am na ci ñaar mariste am na ci ñaar Rufisque am na ci ñaar almadi am na ñaar almadi ma jéggalu almadi benn la am cité comico benn cité kër góor gi benn la am jëppal benn Fatick benn Guinguinéo benn Kaffrine benn Xombol benn Liberté 2 benn Liberté 6 benn Médina am na benn Mékhé benn Mermoz benn Parcelles Assainies benn Plateau benn Thiès benn Rebeuss benn Scat Urbam benn Touba benn téeméeri malade ak juróom fukk ak juróom-ñaar bi ñu saytoo seen yaram mun nañu wax ne ko wér nañu te dinañu génn tey bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu ngi ci service de réanimation yi ñeent doomu aadama génn nañu àdduna niki démb samedi ñeent fan ci weeru sulet ñeneen malaat ñi des nag ñi nekk hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk senegal jot na wàññi juróom-ñaari junni ak ñeent téeméeri malade yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk wér nañ ci téeméer ak fanweer ak ñett ñoo ci génne àdduna mu des ñaari junni ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ñaari junni ñett ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal suñu mbokk yi nga xam ne jot nañu ñàkk seeniñ ñooñ di ñaanal aussi ñu tëdd ci lalu hôpital yi yàlla dimbali leen ba ñu génn ak jàmm di woo askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi nga xam ne joxe nañ ko ci digle yooyu nag am na li nga xam ne li ñuy wooye toujours nit ñi bàyyi xel ci yore sa masque nit ñi bàyyi xel aussi saa bu ngeen nekkee ci mbooloo fexe ba ku nekk sa wet tamit walla képp ki nga xam ne yaa ngi jano ak moom benn metre lu mu gën a néew dox seen diggante nit ñi aussi di farlu ci raxas seen loxo yi nit ñi tamit ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu ngi sooxaale ak yeneen feebar ñu bañ di fàtte seeni rendez-vous yi di dem ci dispensaires yi ak hôpitaux yi comme ni ñu ko doon defee su dee da nga yore benn feebar bi nga xam ne yow war nga di gise ak sa docteur